asalaamaaleykum sama mbokk internet yi tey dañoo ñëwoon fii def ci suñu reportage fii ci Ouest Foire euh, ànd seeg sama man ñëwoon def ci suñu reportage caméraman topp ma ñu dem ci gaay sëñ bi nuyu naa la fàttali ma sa tur. Abdoulahane Mbuub la. Abdoulahane noo def. santu yàlla bu baax. Abdoulahane tey dañoo ñëwoon fii ci Ouest Foire euh, ñu lay laaj euh, situation du jour bi nga xam ne moo xew ci dëkk bi muy ci wàllu la Dantec li fa xew Abdou lan nga ci mën a indil ci la Dantec. bon ginnaaw boo ma nuyoo ñëpp nuy kilifa yi ci dëkk bi yëpp bon la danteek li ma la ci mën a wax comme que hôpital bu xamante ni maanaam ci Sénégal la bokk mënoo ni mënoo lim santé Sénégal di bàyyi la Dantec ñëpp xam nañ liggéey bu rafet bi ñuy def ci réew mi dañoo juddu fekk ko fi ñuy faj nit ñi faj bu rafet nit ñi di wér dellu seen kat seen activité bu ñu demee ba xëy na ñu ne dañ koy defaraat. génnee nit ñi yóbbu lañ ci abri provisoire pour l'instant nit ñi nañ ko accepte jàppale leen ci liggéey boobu ñu def ko ni ñu ko war defee bu paree nit ñi dellu tranquille ñu kon na liggéey bi loolaa ci xam. mais Abdou xam nga ñun danoo dégg ci dëkk bi xam nga dëkk bi moom kenn moomu leen ndax nopp amul kubéer ndax danoo dégg ñu ni Macky Sall dafa bëgg jaay la Dantec moo tax ñuy génne nit ñi ñii ñi ni opposition bi ñu ni day Macky day jaay la Dantec lan nga xalaat ci loolu. non Macky jaayal la Dantec <laughs> Macky munul jaay la Dantec parce que moom mun la Dantec bay jaay la danteek Dantec Sénégal moo ko moom. bon opposition bi nag moom tey jii ni ni ñuy doxalee ci Sénégal xam nga bëgg attaquer Macky Sall sur tous les plans fu ñu bëgg a tabax ñooy dañ koy jaay fu ñu bëgg def marché bu baax ñooy dañ koy jaay fu ñu bëgg a def ko ni pour nit ñi ñooy dañ koy jaay nañ arrêté loolu la Dantec kenn jaayu ko dañ koy defaraat ba mu baax. parce que tey jii santé santé lépp moderne àdduna bi tey jii nii la daan boo fa demee bati ay ancien bâtiment nga fay fekk ay ancien bâtiment nga fay fekk il faut ñu defal couloir yi mu yaatu hôpital fort aéré kenn jaayul la daan teg dañ koy defar nit ñi dellu ñu faj leen tranquille ñu dellu seen activité dellu seen i liggéey ah est ce que lol japoni du yeuf politique rek wala yow comme li nga ni si boy maki nga bok est ce que du lolo tax ngay faral maki. parce que tamit nit ñi kenn moomu leen ndax euh, yenen hôpital yaa fi kenn euh, jamu tuuma mais mëno ñew ni la dante maki jaay ko yow nga ni d'accord ni maki jaay ko deug la yàgg na mais nak Sénégal xam nga euh, jikom du wax lo xamanteni ni amu ci preuve lo xalat ci lol non nek boy maki Sall du tax maki Sall bu wacce yoon. nga ànd ceeg moom Macky li muy def ci yoon loxo tek day defar la dan tek jaayul la dan tek mënul jaay la dan tek momul la dan tek point Macky day liggéey pour Sénégal émergence day liggéey pour ndaw Sénégal xam sen bop Macky Sall day liggéey pour ndaw Sénégal xam sen bop actuellement deuk bi nag xale yëpp dofuñu instant bi xale yëpp dofuñu quoi xalé yëpp dofuñu xalé xam nañ fiñu tek sen tank xalé xale yi yeewu xam nañ fiñu tek sen tank xalé yi dofuñu te Abdoulakhane Mboup président MB mouvement Macky Boys. maa leen di fay. tur bi la. Abdou Sarr la. Abdou Sarr noo def. maa ngi sant yàlla bu baax. voilà Abdou Sarr tey doon ñëwoon fii fekk si la fi doon loolu laaj euh, ci wàllu Dantec nan nga gisee situation bi ni mu nekkee parce que gars yi ñu ngi naan Dantec dañ ko jaay ñii ñu jaay ñu Dantec dañ ko bëgg a réceptionné génne malade yow loo xalaat ci loolu. waaw ñu ngi leen di remercier bu baax. Euh, di leen jaajëfal ci interview bi euh, di wax rek ne li ngeen ma comme question ah, amna solo parce que tey préoccupation sénégalais yépp la hôpital Dantec ben édifice national bo xamné ne ñu ko en 1912 mu nekk ben hôpital bo xamante ne nii abriter muy abrité li muy faj ay doomi adama au niveau national comme au niveau international berina donc buñu démé ba tay 2022 état du Sénégal jël engagement né da koy euh, ki da koy da koy defaraat mu jël malade yooyu mu génnee leen pour man initiative bu ñuy rafetlu la lu baax la xëy fi ñuy apporter suñu touche. wala boog un peu de critique yoo xamante ni dañ ko jëmale ci hôpital boobu par rapport ak réfection bi mooy que ne par rapport au délai bi nga xamante ne moom lañ joxoon maladie un deuxièmement par rapport à la communication parce que dañuy gis né, défaut de communication am ci réhabilitation bobu noonu lu défaut de communication parce que ba léegi opposition ñu ngi jàpp ne état du Sénégal nekkul ne day defar hôpital bi pour maladie nekk ci ay anam yu mucc ayib mais plutôt da koo jaay te état jusqu'à présent génnuñu li nga xamante ni dina leeral askan wi ne di hôpital bi effectivement jaayuñu ko mais dañ koy defaraat pour mu nekk nekk ci anam yi nga xamete ne dina gën a arrangé li nga xamante ni maladie donc tey da nga gis ne défaut de communication am na ci li nga xamante ni mooy gouvernement mais jàppoon ni dañ koy defaraat parce que boo gisee ñu jël malade yi yóbbu leen ci yenn hôpitaux yi ñi yóbbu leen ci yeneen euh, euh, dëkkuwaay yi pour avis provisoire jàppoo ni tamit liggéey lañ war a def wala ragal mu daanu seen kaw comme li nga wax ni date bi ñu ko defar dafa yàgg. waaw loolu laay loolu laay wax en fait date bi yàgg na c'est vrai mais même bu fekkee ne réhabilitation lañ koy defar maanaam dañ koy defaraat anam yu ñu ko jëfaree dem dem ba jël ay malade di leen di génne ñi nga xamante ni ils étaient dans la souffrance nga jël len évacuer len yóbbu len ci yenen béréb lolou lay wax né mon na euh, comme des atteintes li nga xamante ni mooy maladie mais également bien yi nga xamante ne déjà nekk na ci hôpitaux yi donc waron nañ wut benn programme bo xamante ne nii dinañ ko réhabiliter té amana na malade yëpp du ñu mën génni soit ñu defaat benn parti bi bay beneen parti bo bobu jekkee ñu defaraat l'autre parti. donc mais tey nga gédé maladie ak état bi ñu nekk ak bagage yi fa nekk yëpp tey boo xoolee luñ koy defaree ak lañ fay ñàkk ci matériel ay milliards dul jeex lay doon. mais jàppoon na ni loolu ñu def noonu gënul parce que comme nee na day bëgg daanu te wóorul jàppoon na ni tamit lii ñu def nii mooy urgent parce que bu daloon seen kaw tamit du nekk beneen jëye dañuy duut baaraam nguur gi. oui loolu la mais mais gouverner encore une fois c'est prévenir. gouverner c'est prévenir donc waroon nañ jël tey ay mesures yi nga xamante ne nii du ñu du rek ñëw rek ne maladie jóge leen fi parce que hôpital bi dafa war a daanu parce que am na date am na architecte boo xamante ni bu mu koy def. dañu effectivement chantier bi ab bi lay am ba ab bële donc du lo xamante tay tay la état gis né li day waaj a daanu pour mu guéné len donc li ñuy wax né gouverner c'est prévenir mode de prévention yi donc dessna donc waroon nañ ci xalat ci lolu avant tay ba ñu ci dans dans l'urgence comme ça mënoon na ñàkk jërëjëf sëñ bi ok merci beaucoup maa ngi leen di rafetlu vraiment invitation bi et interview bi di leen ñaanal jàmm gis ne aussi yéen a ngi def liggéey bu mucc ci Sénégal ak li ko wër euh, di leen ñaanal jàmm te di wax rek ne vous êtes jeune gëm leen seen bopp xam ne vous êtes vous avez on peut euh, la chance et vous pouvez aussi demain concurrencer la TV5 man maa ngi leen koy ñaanal bu baax a vraiment merci beaucoup. merci beaucoup sëñ bi merci encore une fois. man maa ngi tudd El Hadj Malick Elhadj Malick fan yi dañoo dégg ci Le Dantec problème yi fa am. waaw gars yi buur dafa jaay Le Dantec yi jaay ñu ko defar. waaw jël gars yi ko defar euh, yi maa ngi koy seetaan xalaat kii bi mhm. mu ciy révélé lu mel noonu mais li ma la bëgg a wax boo wax la ko mooy lenn Macky ñun ñii sax jaay ba pare ñun dañuy dox nii rek waaye Macky Sall ba pare. parce que non si. looloo bi parce que fi mu doon nii yow instant bi maa ngi nii añagul daan añee 700 fi mu doon nii restaurant bi laa dugg mu ko 2500 2500 malade boo koy añee te boo demee ci 2500 nga doon dépense kon kay Macky Sall jaay nañ ba pare. maanaam loolu yëpp ay wax la rek. daan dara fa amul boobu ba léegi ñu ngi faj démb ndeysaan damaa seetaan benn maire ñëw ba am fa rendez-vous ñu génn ko toog di jël man la c'est pas normal li waral loolu mooy li am li may laaj nii rek euh, hôpital boo xamante ni Dakar moo fi gën a mag ay dégg nekk ci biir bi ñëpp di fa fajoo ñi am seen i rendez di fa dem yaa ngi dégg état jee ko jàpp euh, bonjour génn médecin génn euh, malade mais loolu fu Touba mais ñun ñu a yóbbu hôpital hôpital boo koy defar noonu nga koy defaree. hôpital boo koy defar noonu nga koy defaree. au moins sax nga may leen benn boo xam te ne six mois ñu amoon seen rendez-vous ñu toog seen rendez-vous ñu war a faj ñu faj bu ñu paree léegi nga may six mois boo xam ne après di nga mën a rey kii. defar sa hôpital. est-ce que jàppoon ni tamit dañuy bañ mu am benn dégât waaye yow soxna si jàpp ma dara li am daal ma am mooy Macky Sall moo bëgg a jaay hôpital bi. fu mu doon nii suufu Ndakaaru bi la tëj ba bërgi dem moom Ndiaye Sénégal gañ a ko mu jël ay euh, coupe d'Afrique moom bii mooy mu jël ay euh, këri jàmm naan da leen koy neexale loolu fu mu ko teg Macky Sall may ñun moomuñu waaw jërëjëf ñu lay saa waa ñu kontaan bu baax a baax baax ci ñëw bi ñu ñëwoon fii ci Ouest Foire lii lañ leen indil loon ci seen reportage di jour boo ñëw di waxtaan ci population bi di leen laaj seen xalaat di leen laaj seen gis-gis ci hôpital La Dantec ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ci yeneen traayam jërëjëf